fi mu toll nii nii Boy Niang taxaw na ci taxawaay bu dëgër donte ni Modou Lo mi ngi woon ci baytul xaw yi nekkoon ci baytul farax waaye fi mu toll nii Boy Niang taxaw na ci taxawaay bu dëgër a dëgër dëgër le premier janvier bu ci Boy Niang góorgóorloo mm. billaahi dina am lu baax a baax ci moom Bombardier rëg-rëg moom waxoon nañ ci dinañ ci waxaat ci jamono jii nag booy xool rëg-rëg taxaw na fu baax waaye jee tim mi ngi ci xaw yi mi ngi ci kattan mm. am noonu laa la ko doon waxee moo tax nag ma xamee ni rëg-rëg bu góorgóorloo mën naa déstabiliser sa jërëjëf mbokk internet ci bu ngi leen di nuyuwaat di leen ziar di leen ndokkeel ak fooy mën a ne dellusiwaat ak yéen ci beneen jotaayu xam-xam sëriñ Abdou Khoudous Mbacké jàmbaar sëriñ Abdou Khoudous Mbacké borom xam-xamu tabiam bu wér bi damay wax ni bu ko neexee ñaan bu ko neexee wax ci xam-xam ndax ku ñuy tudd di tudd sëriñ Mbacké Kajoor damay wax ni dëgg-dëgg foofu la ay woy mën a yem di doomi sëriñ Mam Thierno jàmbaar ji ñu di ko ñaan yàlla sama borom yokk ko wér te bàyyi ko fi Mbàkke balay sa mu yàgg fi lool tey nag dinañu waxtaane waat la ñu doon waxtaane mooy xam-xamu astronomie wala astrologie muy xam-xamu bidéew ak fulit bi naka la ko suñu borom bindee ak aajooy jàmm ñi tey nag damay njëkkee ci ñaari point ñaari combat yi soxal na réew mi sëñ bi benn bi di ci diggante Modou Xarañ Lo ak ki nga xam ne moom mooy Boy Niang benn bi dox ci diggante rëg-rëg ak bombardier waaye tey dinañ sëñ bi dinañ waxtaanee lu particulier mooy ñaan à distance naka la ñuy ñaanale nit ki à distance bàyyi aajom faju mm-hmm, mm-hmm. waaleykum salaam wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mm-hmm. ñu ngi nuyu bu baax seex mu Mouhamadul Muntaxal Basiir di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi te wéral ko di ñaanal suñu waajur bu baax wa sëriñ maam Thierno Mbacke saa borom yàggal ko fi loolu te wéral ko. amiin alaaji buur ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar. maa ngi lay fay sëriñ bi. Euh, di nuyu. mboolem ñi nga xam ñooy suivre plateforme bii di B Pro Média mhm. di leen ñaanal ñoom it jàmm ak tawféex di ñaan lépp lu ñu fi yàq rek yàlla doon njëriñul ñëpp mais sëñ bi tey da nga sañ sa tey ah. ñëpp d'accord tey waaw ah, jërëjëf merci beaucoup dégg naa tey moom tey moom yëf yi mi xëy dëgg nga def moom <laughs> sëñ bi Boy Niang Modou mhm. yaa ngi ci doon développé depuis lors waaw kay jërëjëf buur Boy Niang Modou dafa mel ni bu ma jumul tey la seen tey la waaw waaw waaw tey daanaka bokk na seen mu jëli jàkkaarloo jërëjëf li may wax foofu nag lenn képp la ci Boy Niang laa koy jëmale. Mhm. mooy lu mën a xew na fexe ba njëkk dem. na fexe ba njëkk a dem tey. na fexe ba njëkk a dem tey. Mhm. buur xanaa xamoo ni bu suba xasee jàll ñoom ñaar ñi ngi mënantee ci sarax ñi ngi gañantee ci sarax. à partir de de, euh, de à lundi à partir ñu ngi mhm. gañante ñoom ñaar ci sarax. te ka gañe ci ñoom ñaar ña ngay ma ngi koy gañee bu arbitre ne firi ci combat bi. kon kenn mënagul kenn. fi mu toll nii nii Boy Niang taxaw na ci taxawaay bu dëgër donte ni Modou Lo mi ngi woon ci baytul xaw yi nekkoon ci baytul farax waaye fi mu toll nii Boy Niang taxaw na ci taxawaay bu dëgër a dëgër sëñ bi te moo tax nag ma bëgg ñu gën koo bàyyi xel bu baax a baax gën a veille ci moom tey gën koo siifru dimbali ko rek gën koo siifru tuuti ngir que moom mu mën a am ndam ci li muy sàkku da ngay bañ ñu xëtt ko damay bañ ñu xëccoo ko hmm. moom buñ ko xëttee rek ba mooy lu bari mën naa mën na ko perte hmm. gis nga uh, bis boobu ñu war a sëgg bu mm. ci booy ñang góorgóorloo le premier janvier le premier janvier bu ci booy ñang góorgóorloo mm. billaahi dina am lu baax a baax ci moom waaye na gën a vey ci sarax yi tey mu gën a xam boppam yan sarax lay génnee mm. gis naa nag euh, mel ni am na ci yenn ci sarax yu ñu koy digal waaye yooyu na ci def très très très très jarul def jarul def na ci tey bu baax a baax bu arbitre bi ne fir am na ci sarax yoo xam bis bu ko defee moom du laal suuf ba mukk insha allahu Bombardier rëg-rëg moom waxoon nañ ci dinañ ci waxaat ci jamono jii nag booy xool rëg-rëg taxaw na fu baax waaye Bombardier tim mi ngi ci xaw yi mi ngi ci kàttan hmm. donte ni euh, rëg-rëg mi ngi ci baytul farx waaye gis nañ ni Bombardier mi ngi ci baytu saabit te xam nga moom moo doonoon Lac de Guiers ak. Euh, ak Siteu ak hmm. noonu laa la ko doon waxee. moo tax nag ma xamee ni rëg-rëg bu góor góorloo mën naa déstabiliser sa waay. Hmm. waaye ci biir loolu. balaa muy egg ca loolu faw mu góorgóorlu moom ci boppam rawatina ci wàllu ñaan yàlla waxuma la sarax sax moom di waaye ci ñaan yàlla wàllu ñaan yàlla ci boppam waaw lu ko moy rek cat dina ko téye wala boog liggéey dina ko téye ba mu am lu mu gàllankoor ci moom est-ce que mu ngi noonu loolu ñamali la woon waaye te sëriñ bi te dama bëgg tey ñu waxtaanee euh, li gaay yi tuddee GP Mhm. GP tey boo jox nit ku yóbbante mhm. mu doo yóbbante ko diw waaye tey mhm. GP laay wax ci wàllu ñaan yàlla nga xam ne du doon butéel buñ lay yónnee du doon aw xaatim du doon aw fas du doon nangam nangam nangam seen bi xonos ki toll tey ba New York jërëjëf woo sëriñ bi sëriñ bi ñaanal ko jërëjëf buur xam nga maa ngi ko doon wax keroog bés yi ci at mi 365 jours la yu ko genn wàllu bés nit ku judd ku nekk rek juddu na ci benn weer juddu na ci benn bis. Mm. masalum li ko tàmbalee ci 21 mars 21 mars bu jotee xam lu mooy tàmbali. 21 mm. avril mais mm. euh, 22 mai jawza. 22 euh, juin gis nga ko zartaan. noonu lañ koy toppee toppee ko toppee noonu nag ba 20 avril. 20 avril huut daal tàmbali. gis nga. ci diggante boobu noonu nga xam trois cent 365 jours la bu fekkente ne ci sana samsiya la. cinq jours lay doon. bu dolleeku genn wàllu bés. bu fekkente ne ci sana xamariya san dun lay doon mooy cent 354 jours nga xam ne bee da ko ëppee 11 jours. léegi nag naka la nit di ñaanale nit ki en distance. en distance ak lu mu sori sori. lu mu sori sori. xam nga buur wax naa ni la ku judd ku nekk rek judd na ci benn mu judd ci xamlu wala mu judd ci sawru wala mu judd ci jawza wala mu judd ci sartaan wala mu judd ci asad wala mu judd ci sunbala wala mu judd ci mizan wala mu judd ci xaqara wala mu judd ci xaws wala dallu wala mu judd ci huut gis nga fukki burju yi ak ñaar ala kulli al nit ki di ko génn faaw mu judd ci ci benn ci biir burju yooyu mu judd ci ci benn manzila mooy saratin bu tey na zura yaa dabaran xaqax du xanqa ziraaxa nasara tarfa a zubra sarfa xawaa isamaak xafar sabana ikilil xal bu saw la naxa imbul da sax du sabe ba ca batnul xuut mu doon ñaar fukk ak juróom-ñett 28 manazil nit ki bu juddootim faaw mu judd ci 28 manazil mu judd ci ci benn ndax xam nga taqsimul manazil fil abraj dafa am muy mansila yi dañ leen di séddale ci biir burji burji bu ci nekk am ci ñaari mansila ak genn wàll mm. est-ce que dégg ma maa ngi lay dégg bu bu ci nekk burju bu ci nekk dafa am ñaari manzila ak genn wàll. muy deux manzila et demi. bien muy ñun suñu appartement yi ñoo jàkkaarloo waaye appartement bu appartement bu ci nekk am na benn chambre salle bain ak benn salon ak benn cuisine. Hmm. dégg nga ko. léegi nag ñoom ni ñu ni defee mooy burju bu ci nekk mooy ñaari appartement yi jàkkaarloo ku ci nekk am nga deux chambres ak benn moitié chambre. Hmm. mooy ku ci nekk am nga ñaari manzila ak genn wàll. maanaam ñaari néeg ak genn wàll. wala boog ñaari kër ak genn wàll. genn wàlla hmm. gis nga ci biir loolu dafa am lu ñu tuddee biddiw yi muy sual mustara mir riix sam su suxratu xutaari ak xamar kooku benn la ci tartib yi am tartib yi nga xam ne moom la ñu defee moom la ñu tuddee tartibul kawakib sual mustara mir riix sam su suxratu xutaari xamar am na ca ci tartib boobu tartib bii nag moo gën a siiw moom la ñu ëpp lu ñuy jëfandikoo am na yeneen tartib yoo xam ne bu diggee ci baatin lañ koy xam ndax xam nga li ñuy wax nii zaahir la du baatin li ñuy wax ni zaahir la du mm. ku ci nekk mën nga koo xamal sa bopp gis nga ci biir loolu nit ki nga xam dafa judd ci burjul xamlu kooku benn mooy am mu judd ci waccu awal wala mu judd ci waccu saani wala mu judd waccu saalis bi moo ki faw da nga koy xam bu nee 21 bu nee mars la judd rek da nga xam ba xam 21 mars wala 22 mars bu xam ci waccu gis ni saaxibu burju burjul xamlu da gis ni mirriix moo ko moomee waaye da ngay gis ni waccu awal bi itam da ngay gis ni biddiw bi muy àndal jant bi mériix la hmm. léegi kon kooku lan mooy problème moom bu loo woo rek rapidement automatiquement yow sa jëmm dinga xam kii lan mooy problème avant que mu lay wax dara avant que mu lay wax dara parce que parce que ni ni ay mbiram bindoo la ci wàllu bi très bien hmm. moom ci jëmmam avant mu lay wax ni la sax man at sàngam laa juddu wala ci weer sàngam wala ci waxtu sàngam danga nga koy xam ndax li tax mooy waxtu bi mu la woo day communiquer ak yow waxtu bi mu la woowee waxtu bi mu lay woo am na biddiw buy daw loolu la ñu tuddee saaxatul kawakib waxtu bi mu la woo am na manzila buy daw waxtu bi mu la woo am na burju buy daw. te burju yooyu ak manzila yooyu ñoo lay informé. dañuy communiquer ak yow jamono bu nekk. maa ngi dégg de. dégg nga ko. Mm-hmm. léegi nag gis nga ñaar fukki manzila ak juróom-ñett yi nga xam dañ koo def tax simul manazil fil abraj manzila yooyu da ci am yoo xam dafa naas jiddan am ci mm-hmm. yoo xam dafa naas rek yam ci am ci yoo xam dafa saad mooy dafa set wicc am ci yoo xam ne dafa sànq di jiddan am ci yoo xam ne muntasij la mooy dafa am ñaari melo. mooy yii dañoo set wecc. Mhm, yii set yii lëndëm yii lëndëm kurus. ndax diggante lëndëm ak lëndëm kurus. bokkuñu bokkuñu. am nañ différence. dégg naa la léeg nga dégg ñun la diw biddiwam miriix la biddiw dafa lëndëm wala moo ay mbiram dafa lëndëm déedéet demewut noonu lii lëndëm ci Abdul Xuddoos bokkul ak lii lëndëm ci buur. ah parce que yemuñu. yemuñu dëgg la. ñaari nit mën nañ parce que xam nga nit bu juddoo da ngay xool année bi mu juddu année booba ban biddiw moo doon gouverner. kon biddiw yi chaque année dafay am kuy jiite day am kuy jiite. da ngay xam ci mois bi mu juddu ban biddiw moom moo doon gouverner ci mois boobu da ngay xam semaine bi mu juddu ban biddiw moo ci doon gouverner. allahu akbar. bu ko defee nag ci biir loolu ci ngay doog a mën a xam nag moom lan la léegi boo xamee moom kër gi moom ngay doog a doog a xool nag biddiw bi moomee nga xool itisaal ba xam nga buur dafa am lu garaaw a garaaw a lu ci nekk. Hmm. ndax gis nga dafa am itisaal buñ ko waxee mooy Abdou Khoudous mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi Touba wala mi ngi Dakar wala mi ngi Ndar wala mi ngi Thiès. Hmm. waaye am na ittisaal ak buur lan mooy ittisaal bi mooy jël na téléphone am woo buur ñoom ñaar ñi ngi waxtaan. Hmm, am nañu relation. très bien relation boobu ñu am nag benn mooy Abdou Khoudous kattanam lay jox buur wala buur a koy jox kattanam. mooy Abdou Khoudous yónnee na ko xaalis wala buur yónnee na ko xaalis wala Abdou Khoudous invité na ko wala buur invité na ko loolu mooy ittisaal. Hmm. léegi nag ci biir loolu dafa am kawkabul xafiif am kawkab boo xam ne saxiix la saxiil la am kawkab yoo xam ne day toll foo xam daif lay doon am ci foo xam bu fa tollee da ngay gis ni burju bi day nekk ci xadid am ci foo xam bu fa toll dafay nekk ci hubut hmm. lu compliqué laa lay expliqué nii buur waaye lu yomb xam la lu yomb xam la man maa ngi comprendre de bu baax a baax a baax te ñu essayaan aussi ñu ngi comprendre très bien jërëjëf buur léegi nag boo gisee boo gisee euh, lu mel ni tey ci li ma doon leeral nii boo gisee hmm. tey lu mel ni suxal masalam tey boo jëloon suxal tey bu nekkee ci burjul xamlu da ngay gis ne kooku dafa xubóot kooku dafa nax sa jiddan mhm. dégg nga léegi tey bu fekkonte ne dafa nekk ci euh, suxal bu fekkonte ne dafa nekk ci burju sawr dangay ngay gis ne xarib la dafa nax sa mhm. dafa nax rek yem ca bu nekkee ci soxal bu nekkee ci sartaan da ngay gis ne wabaal la ba tey dafa nax sa soxal bu nekkee ci euh, zunbu la da ngay gis ne xarib la dafa nax sa soxal bu nekkee ci misaan da ngay gis ni sarafam la saayid la jiddan du saax waaw mooy kooko kon bu boobaa dimbali ko ca dina yomb taxawu ko ca dina yomb faj aajoom dina ca yomb. bu dul loolu nag dafa am feneen foo koy rëbbe ji ba jàpp ko. maanaam da ngay da ngay rasdu vidéo bi. danga koy rasdu mooy rëbb ko. xam nga rasdu dafa am ñaari rasdu. dafa am rasdu boo xam ne moom la ñuy tuddee euh, rasdu boo xamee las yi la mooy ma kii la nii rek zaati yi la jëmm ji mooy biddiw bi nga rasdu ko ba gis ko nii. Hmm. waaye dafa am rasdu boo xam ne moom lañuy ñuy tuddee rasdu boo xamee ni baatin la. mooy biddiw bi fii la taxaw waaye xam nga ni yow amoo temps réel biddiw bi rawee na la ñaata fan éclairage bi moo fi nekk waaye ba mu fay sax démb la woon wala bërkaati démb la woon wala boo ko dee avance ñaata fan nga koy dolli loolu mooy ras du baatin bi loolu boo ko xamul mënoo cee ñaanal nit ki biddiw bi du caage ne fi mu nekk nii tey ci manzila bii rek foofu rek la nekk déedéet waxoon naa la ko koy suñu diggante ak jant bi tey bu ñu ko dee xool dañu gis ñun xool nañ ko nii gis ko direct nii ma koy gisee nii caméra bi mm. mais gis na ni weesu na 8 minutes juróom très bien léegi nag rastu dafa am rastu boo xam ne mooy rastu baatin léegi buur ci biir loolu nag ci la ñuy dikkee ci benn mbir ma am lu ma la ci leeral tuuti. Mhm. gis nga suxal mustara mirix samsu suxratu xutaar ak xamar dafa am lu ñuy tuddee taqsimul uruf fil kawaaki bi. Mhm. mooy uruuf yi dañ leen a ci biir kawaaki bi ni ñu leen séddalee nag mooy ni nga xam ne noonu la ñuy sédd noonu lañ leen sédd noonu leen ci burj yi seddale leen ci manazil yi. daf ci am bis bu ci nekk dafa am xaraf boo xamee ne moom moo koy conditionné. benn chiffre benn chiffre. boo mhm. xam ne moom moo koy yor. Mhm. chiffre boobu boo ci dee jëfandikoo boo ko dee utiliser dafa am yeneen i moroomi chiffre am yoo xam ñoo ay xaritam ñoom ngay jël indi leen boole leen ak moom. te allah kulli aal boo ci bëggee faj aajo. foofu loo ci bëgg def di nga ko ci def. Mm. am na ku ma ci ñuy waxtaan ci wàllu moog borom këram xeet moog borom këram ak xeet ak jafe-jafe yu ñu am ak xeet mm. ci waxtaan mu ne ma ñaata fan lay diire mu ne ma ne ko mi ngi aju ci yow mi ngi aju ci yow heure boo noo ko bëggee rek noonu lay demee bu la neexee 24 heures bu la neexee 72 heures la mi ngi aju ci yow. gis nga ci biir loolu da ngay gis ni lu mel ni que soxal nga ni alif ha sot ta ñett yooyu la ñeent yooyu la amee. Mm-hmm. noonu nga koy jàlle mustara nga ni ba ta ayin saat mooy siin go saat euh, nga xam ne cuun la. Mm-hmm. gis nga noonu nga koy toppee ba ba biddiw bu ci nekk am ñeenti arafam léegi ci biir loolu biddiw bu ci nekk nag ci waxtu wi dafa am lu muy ci lu muy dox boo ko bëggee jëlee ca mission boobu faaw da nga koy or da nga koy da nga koy da nga koy organiser waat. maanaam fekk ko ci yoonam. bëgg ko wàccloo yoon yoonam indi ko yow ci yoon wi la tax a jug wala yoon wi nga bëgg. loolu pour nga def ko nag loolu mooy baatin ba mooy jat yooyu ma fi waxoon keroog. am na kilifa yu ma woo di ma ko laaj. Hmm. dafa am jat goo koy jat ba tax mission bi bi mu doon dox nga bàyyi loo ko sant ko yow mission bi mission bi nga bëgg bu doxal la ko. moo raw nga yor say jinne di def léegi buur boo xoolee mhm. da ngay gis ni soxal biddiw yi dañoo am ay xeeti tawat ay jàngoro ay jàngoro mais sëñ nag man biddiw laa mënut a comprendre waaw maanaam léeg-léeg nit woo ma ci benn waxtu parce que biddiw du jinne du malayka du nit mais day am doomi bàjjan mhm. day juddu mhm. day faatu day am jikko day am melo day am kër c'est un peu compliqué très xam nga li waral loolu mooy xam-xamu astrologie dañuy wax ne alxuraan moom mooy li bàyyiwul dara. Mm-hmm. lépp moo ko yóbbaale. xam-xamu astrologie mooy xam-xam bi nga xamee ci la nit ki mën a sukkandiku ngir développer àdduna. te nit ki bu ko xamee day yokk taw yi digganteem ak boroomam. buur bu ma la waxoon nii la dënd bi ñu nekk nii tey. daanaka mën naa ne amul dara lu ko tëye ci kaw fëlëg bi la nekk di naaw comme ni picc yi di naawee ci jaww ji lu dul ni benn cercle bu ñu nos lu mel ni que course gu ñu nos ci ak buumam mm-hmm. bu ma la ko waxee xel du ko mën a nangu te dafay daw heure di wër boppam di daw heure di wër jant bi te ci biir loolu weer mi ngi ci kowam di ko daw di daw di ko wër heure te yow boo tegee kaasu ndox du yëngatu. du yëngatu di nga xamee ne suñ borom moom. xaadirun ala kulli shay'in la mooy ki attan lépp. Mm-hmm. gis nga buur soal da ngay gis ni baara yaabis la. mustara da ngay gis ni xaara rotab la. da ngay gis ni mirriix xaara yaabis la. ki ci tege da ngay gis ni xaara yaabis la baara rotab baara yaabis baara yii yëpp ay xeeti tawat la yoo xamee ni que heure bu la nit ki woowee rek bu fekkoon tawat dafa nekk ci moom rapidement di nga xam tawat ji nangam la. te jarum ko tawat ji nekk ci moom moom ci jëmmam daf koy jaaxal la moo ma sonal. te médicalement lay doon wala feebaru doon médical wala doon mystique te lu mu a doon ñun dañ ko koy wax dañ koy wax mu leer nañ gis nga ci biir loolu tim hmm. soxal moom moo moomee Euh, musallas xaatimul musallas xam nga xaatim xaatim waxin la waaye ca dëgg-dëgg mbir ma mooy al awfaax al awfaax al musallas almul awfaax mooy mbooleem xawaatim yi ñuy dagg muy am kër yi loolu mooy almul awfaax waaw parce que musallas yi dafa bëri xaatim bi jëmmi xaatim lu ko indi mooy xaatimu Suleymaan jaaroob Suleymaan moo indi jëmmi xaatam hmm. xaatim mooy mottali jëmmi awfaax nag mooy kër yi nga xaatim li nga xam dañ koy dagg defal ko kër yi loolu mooy hmm. al awfaax lu tumuranke la di nga dégg nit ñi di wax xaatim sàngam xaatim sàngam xaatim sàngam déedéet alimul awfaax la tudd hmm. suxal nag moom moo ci moomee musallas mustara moo moomee muthammin mirriix moo moomee muxammas euh, samsu moo moomee musaddas suxratu moo moomee musabbaxu muy juróom-ñaar xutaarit moo moomee murabbaxu xamar moo moomee mutasix kon donc nit ki warta am aajo rek de ñëw nga dagg xaatim bu ko neex daal dagg jox ko mu nekk ne ko demal sangu ji mu sangoo ko ay mbiram yëpp nag karaj munta nekk waaw mu sangoo ko mhm. jàngoro dab la mhm. léegi nag gis nga buur ci biir loolu boo ci bëggee faj ne da ngay gis ne suxal ah, xàq la lay jàpp ci nit mooy xel mooy xelu doomu aadama bi li ko wër lépp suxal moo koy ci moom hmm. nga gis ni mustara moom mooy jàpp ruuxu doomu aadama gi ruuxu gi nga xamante nit ki boo bëggoon mu baax wala mu nekk ci yoon bu la neexul wala dana nga bëgg koo soppi boo demee ca baatin ba ca rasdu baatin ba da nga ko fa fekk lu leer moo xam da doon naan sàngara moo xam ah. da doon jëfandikoo lu bon moo xam da doon jaay boppam très bien hmm. boo demee ci miriix da ngay gis ni moom moom moomee xalbu li ñu tuddee alxalbu hmm. mooy xolub doomu aadama bi hmm. boo demee ci samsu da ngay gis moom moom moomee aljasad mu yaramu nit ki lépp koor demee ca euh, sunbu la euh, euh, samsu suratu boo ca demee dangay ngay fekk ne moom moom moomee aljild mooy deru nit ki moo waral dañuy wax ni suxratu mooy zinat mooy zina mooy taar bi taar bi mm. jigéen ñi taarloo lépp suxra moo koy doxal mm. boo demee ci xutaar yi da ngay gis ni moom moo moomee al li ñuy tudde al anchob muy sidit yi sidit doomu aadama ñooñu la plupart bu ñuy feebar mhm. feebaru neer lañuy am mhm. wala feebaru boo demee nag léegi ci euh, xamar da ngay gis moom moo moomee al anzab mooy mm. yaxi doomu aadama yi mooy ñi amee rhumatisme gis nga buur barke alxuraanu karim fee maanaam jëmmi xam-xam bi daf ci am ay mbir yoo xam gis nga yëpp nag bu dajee dafa am lu ñuy tuddee an nawaadirul xabaa mooy ay atte yoo xam dafa raar ci biddiw nga di ko gis hmm. te loolu chaque jour daf lay arrivé daanaka chaque jour yow booy booy booy natt dala wala ngay liggéey dara dana la arrivé te atte yooyu dafa raar lool hmm. gis nga ci biir loolu dafa am lu ñuy tuddee al ajraam asamawiya ndax biddiw yi ku ci nekk da nga am jaram mooy itisaal yooyu ñuy wax jokkoo yooyu ñuy wax masalum tey boo demoon ci sams da nga koy fekk 30 la am jaram boo demee ci xaram euh, xamar da nga koy fekk ni douze douze la am muy fukk ak ñaar mm. boo demee ci suxratu ak xotaarit moom da ngay fekk ñoom ñëpp 14 la ñu am boo demee ci miriix da nga koy fekk ni 16 la am boo demee ci suxal nga fekk ko mu am 18 loolu yëpp ci ay ajram muy ay nuuraan yi ay leer seen leer yooyu nag bu ñu nee itisaal moom la ñuy sànni ci beneen biddiw jokk ci moom mm. loolu mooy waral léeg-léeg nit war a jokkoo kenn ma ne ko non waxtu boobu baaxul bàyyil ba waxtu sàngam léeg-léeg nit war a génn ci mbooloo politicien wala musicien wala dara ma ne ko date boobu baaxul tuxalal sa date jàppal benn jàppal date sàngam mm. léeg-léeg nit war a sol couleur sàngam ci bés sàngam ma ne ko non non couleur boobu baaxul ndax dafa am lu ñu tuddee euh, comme li ñu li ma doon wax léegi muy nawaadirul xada dafa am lu muy joué ci nit ki wàllu couleur wàllu couleur waaw parce que parce que par tey ki nga xamante ne bidéowam tey xotari la mhm. am na ay couleur ñoom dañu am ay couleur mhm. xam nga couleur yooyu dafa am ay couleur yoo xamee ni mm, euh, nit ki mooy couleur dundam. am ci couleur boo xam ne mooy couleur sens am am ci couleur boo xam ne mooy couleur wërsëgam am ci couleur boo xam ne mooy couleur. relation relation. Euh, boole ko couleur bi koy apaiser. psychologiquement apaiser mm-hmm. psychologiquement. Mm-hmm. te loolu bu ñu demee ca jaaro yi lu baree bari dana ca leer ci beneen émission. Mm-hmm. waaye ngir rek ñu mën a comprendre dëgg-dëgg rek xam-xam biddiw mbir la moo xamee ni ndax gis nga nit ki comme Abdul Xuddus Mbàkke ñu indi turu yaayam turu baayam kooku mooy turam. léegi nag dafa am lu ñuy tuddee al asmaul munajjimin mooy istixraajul asmaul munajjimin mooy génnee gi nga xam ne munajjimiin yooyu génnee turu Abdou Khoudous bu bokkul ak turu Abdou Khoudous Mbàkke bi muy wuyoo. Hmm, day am tur. Hmm, ndax xam nga léeg-léeg nit tudd ngañ ngañ dem ba. Hmm. dafa yàlla ma nga fa tudd Abdullahi ngir mbaax gu mbaax. dëgg la. léeg-léeg nit tudd njaga wala mu tudd. paate te ma nga tudd fa yàlla Abdou Razaq. Hmm, jàmbu tabe bi. dégg nga ma. Hmm. léegi nag loolu ci biir biddiw nag nit ki boo ko dee ñaanal du caage ni turam rek ngay jël dafa am ay tur yoo xamee nii nga nit ki moom ci jëmmam xamu ko ni moom tur yi moom moo ko moomee. Hmm. heure boo bëggee jàpp ruuxam bëgg ko organiser ci bëgg ko orienté fenn ci ci tur boobu nga koy jaare doo ko jaaree ci tur wi ñu tifli ci moom doo ko jaare ci daddini sans xam nga sëriñ bi lii ndox mu am solo. Mm-hmm. mooy damay wax nit ñi dinañu xamee dëgg-dëgg ne xam-xam am na te lu mm-hmm. nekk la. waaw ah, ci lu wér. Mm-hmm. waaye sëriñ bi suñu waxtaan bee passé dafa am loo cofoon. Mm-hmm. te gars yi dañuy des ba di ko laaj. mooy ci mbiru candidat yi ñu jëm. Ah. ku ci nekk change yi mu am. Ah. tey su ma jëloon tey. ku ci mel ni Karim Wade. comme par exemple. damay jukki tey ñeenti candidat rek. avancé te ku ci mel ni président Karim tey. am na ay chance pour gouverner dëkk bi. jërëjëf Bour. xam nga candidat yi euh, waxoon naa ca émission ba njëkk waxaat ci waxaat ci beneen émission mm. euh, boo jëlee tey ku mel ni Karim Wade waxoon naa la lu mu doon ci Sénégal mm. wax la boo jëlee ku mel ni Bougane li mu doon ci Sénégal wax la boo jëlee ku mel ni Ousmane Sonko li mu doon ci Sénégal mm. wax la boo jëlee ku mel ni amadu Ba li mu doon ci Sénégal ku mel ni Déthié Fall ku mel ni xalifa Fall ku mel ni Khalifa Sall ku mel ak ñeneen ak ñeneen ñeneen léegi nag ci biir loolu ñoom dañoo am doxin yu sew yoo xamee ne ku ko ci doxee rek da ngay am mille sens pour mën a jox xam nga bii jàll wax naa leen la mhm. Macky Sall teg na première pion Ousmane Sonko teg na premier pion waaye diw sàngam bu ma digloo ñoom ñaar ñëpp seen pion day rëcc mhm. te gis nga Ousmane Sonko pion bi mu tegoon gis nga ko xam nga ni mbir mi léegi ci moom la dellusiwaat Bassirou Diomaye waaw waaw mbir mi ci moom la dellusiwaat mbir mi ci Ousmane la dellusiwaat mhm. kon loolu pion la te ci kanam tuut dana leer ni les pion la mooy Macky Sall teg na pion léegi nag gis nga Karim Wade Ousmane Sonko Khalifa Sall Amadou Ba. Mm. Bougane Gueye. Mm. Abdourahmane jiw ak ñeneen ak ñeneen ñeneen ñi xëccoo réew mi réew dafa am nu ñu koy gañee mm-hmm. réew dafa am nu ñu koy gañee ni ñu gañee réew dëgg-dëgg ku ko mën a xam ki la mën a wax maanaam nga ñëw ci moom parce que képp ku ci ñëw ci yow toog wala mu wala téléphone moom yéen ñaar képp ngeen waxtaan lu mu doon ci réew mi rek di nga ko xam. di ko xam. te it moom di nga ko ko wax mu xam ko bu fekkente ne war naa mën a yorum réew. war na koo mën a gañe moom bu la waxee boppam nga wax ko moom ci jëm dina xam ba xam dina gañe réew wala du gañe hmm. te bu boobaa bu fekkee war na koo mën a gañe am na sarax yoo koy digal ak waxtu waxtu yoo koy jox ni ko sol couleur couleur sàngam nga lancé benn message moo xam message noo koy lancé yaa xam maanaam nga wax ak askan wi nga wax ak askan wi ak ci nu mu mën a jëm baax na billaahi lazi laa ilaaha illaa hu bu ko defee bu élection yi dikkee kenn du ko gañe mu laal nañu daanaka ñaar fukki minute ak juróom. ah waaw. <laughs> te tey. Mhm. man maa ko def sax exprès sëriñ bi génn tey lu bare bare. Mhm. waaye ñi lañ koy toppee ah buur ak sëriñ Abdou Khoudous. Mhm. mooy du ñu bàyyi. chaque semaine dinañu waxtaan ak yéen ci xam-xamu astronomie. candidat ngoog. forcé wuñu kenn suñu yoon nekku ci kenn ñu ngi suñu logique. waaye sëriñ bi daal. man saa su ne maa ngi koy déglu te xamaa ne xam na li muy wax. sëriñ Abdou Khoudous looy tàggoo. Ah, jërëjëf buur xanaa di tàggatoo rek di leen wax ni. Euh, le 25 avril 2024. defe naa hmm. mooy élection yi. le 25 février. le 25 février 2024 waaw 2024. bis boobu buur dafay fekk lu mel ni li ñuy tuddee iqtiraan dafay am ñaari yoon. Hmm. dina am ci diggante miriix ak mustara dina am ci diggante suhratu ak xutaarin gis nga seen iqtiraan yooyu. Hmm. baax na ci Ousmane Sonko baax na ci euh, Déthié Fall. baax na ci amadu Ba. waaw. baax na it ci Abdourahmane Diouf. Mhm. waaye gis nga ixtiraan yi baaxul ci état. baaxul ci nguur baaxul ci nguur te nguur xam na li may wax xam na ne ixtiraan bi am baaxul ci ñoom kon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.